Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance de renouveler. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également gars de baisser les commentaires. Un plaisir de renouveler chaque fois de partager des informations. Bok Sénégalais, fait faut le maintenir hein 14 régions du Sénégal, Roukouroukat, Gorgokhadi, ñi ngi leen di jaajëfal ñi également ci la l'hôpital ci kër yi tëdd février, yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ak génne ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i ñi dédoo àdduna suñu borom xare leen ajane fii daw si gars yi te ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV

également Jeux olympiques fédération bi nga xamné nak moy athlétisme gars yi war leen a gersu ah. yéen bi di record wax ci Aliou Cissé bi nga xamné nak mi ngi soog am remontada mom ak ñidi wa euh, Brésil. manam ñu daal di koy donc mené Aliou Cissé daal dem jëliko mi ngi non bu koy njëkk am fimné ni ah. donc par rapport ak yenn équipe yu mag a mag yi euh, également di donc Idrissa Gana Gueye dem ci Makatal mu karam léegi Hage. Idrissa Gana Gueye wala El Idrissa hein? donc ku kenn daggati nan ay idées yooyu donc moo ngoog gis ngeen ko qui est parti donc bo dem ci def yi nga xam mo bokku na ci 5 piliers de l'islam yi Idrissa Gana Gueye nekk koo xam ne kenn dotu ko naatable par rapport ak taxawaayam mais aussi basketball gars ñom nak dañu amal li nga xam ne nag mooy donc 5 juillet tay ji lañu ñu amal donc mercredi li nga xam mo jëm ci. Les di mercredi bi boobu lañ ko war di jëm ci donc liste jigen yi nga xam ñom lañ téye pour coupe d'Afrique bi góor ñu également pour ñu nga xam moo jëm fenêtre TQO bi ak aussi wax ci leen ponk lañu jëm ci nak di Bingourou Camara mom nak dem na signer ci Pau FC Pau FC la daal di signé jóge Montpellier le gardien sénégalais bi nga xam ne dafa dem relancer carrière am du côté donc de Pau FC bi nga xam né nak un certain donc les euh, larmes de Moustapha Naam jaaroon na fa ki ngeen gis na gay di Ousmane Diop la pépite aussi de Jambar de Sali nek jeune bo xamné euh, nek na jeune bu talentueux élee la moom nag day dem du côté de 3 lay jëm dal di fay jouer ki nga xamné nak moy donc ki di Ousmane euh, Diop hein. donc ñukay souhaiter bonne chance hein. donc le joueur de Jambar FC ki nak également di Diao le joueur de de Gorée hein, ancien U17 mom nak gis ngeen ko un attaquant puissant la mom nak ci Azam FC la jëm fekk ñi nga xam donc Youssouf Dabo Youssouf Dabo dal décidément <laughs> machallah mi ngi yobbu <laughs> joueur Sénégalais yëpp ki nga xam mooy Cheikh Tidiane Sidibé aussi fa la war a dem malheureusement nag ah donc pour waa AS Pikine match bi nga xam coupe du Sénégal am di ko huis clos lañ ko ba pare stade bu Lat Dior lay am diggante AS Pikine ak jaraaf match boo xam nag AS Pikine moo waroon a recevoir nekk na loo xam nag rafetlu wuñ ko ah ci maanaam violence yi mais war na yee aussi li nga xam mooy supporters yi ñu gën di farlu xool li ñuy def mais aussi gars yi waxoon naa ne ko ki nga xam ne mooy donc eh, Hakim Ziyech fii la mbir yi di leere Hakim Ziyech gars yi du wàllum eh, jeune bi moo tax mu daal di raté li nga xam ne mooy donc lii di eh, transfert moom daal moo gis nga lii la posté sax di mbal ak gars yi moom dafa am yenn ponk yoo xam ne d' accord ko ak Al Nassr ci wàllum payo geeg yooyu moo tax mu daal di annulé loolu mais du wàllum test boo xam ne da ko raté loolu daal la fësal ki nga xam ne également mooy donc kii di Firmino Firmino aussi gars yi léegi ñu génn jot officialisation am ne day dem du côté donc de Al Ahli fekk ji un certain Edouard Diolkouba mur Mendy l'attaquant brésilien bi nga xamné ne na du côté des Reds de Liverpool Liverpool bataille ki nga xamné nak moy donc euh, Thiago Alcantara jot li nga xamné moy donc euh, proposition bu Al Ettifaq fi nga xamné moy donc fa le Steven Gerrard wara dem mais aussi ak Besiktas mais mom da fi mu ne nii day préparer pré-saison du côté de Liverpool laataa moy xalat dem fenn dal pour l'instant proposition da ko daal euh, rejeté temps dal daal hein, Fred Thuram yi ñoko yor quoi gannaaw Marcus Thuram dem na l'autre Fred Thuram de Nice mom nak fi mu ne nii mi ngi gën a jege Bayern de Munich Liverpool dafa dellu ginnaaw ndax ñoom Szoboszlai lañ mujjé jënd donc moo tax daal fi ne nii gars ne euh, Bayern Munich dal mo ci nek ak Thomas Tuchel jour bi da ko dal di neex ki nga xamne également ngeen gis ni ah di Adolf Hitler pas Adolf Hitler hein Adolf Hitler moy le nouvel entraîneur bu AS Monaco bu ñom Ismaël Jacobs ak ñom Crépin Diatta et qui ay et qui ay Crépigno ki nga xam moy Marcelino donc après Crépigno Marcelino Marcelino nak nee aujourd'hui projet Marseille bi da ci gis boppam gis ngeen ko un Marcelino pour Marseille moom daal nee na fi mu ne nii daal projet bi gis na ko te aussi euh, ñoo bokk identité de jeu te loolu la fas imposé du côté de Marseille bokk si ñuy xëccoo championnat bi ren kii nag di Galtier Gattier moom nag fi ne nii waa Paris Saint-Germain ñu waaj am déggoo ak moom pour daal di koy dàq officiellement fay ko yenn ndàmpaay parce que li ñu ko waroon fay dafa bëri day jéem waxtaan ak moom xool na lañu fexe ba wàññi ndàmpaay fay ko mu daal di dem. yoonam ndax Luis Enrique ñu mën ko officialiser mais aussi Paris Saint-Germain pour l'instant également six joueurs yi nga xam ne ñom signé nañ Paris Saint-Germain ba pare li des mooy daal leen officialisé mooy Kang In Lee bokk na ci Chernour Skriniar ah, Asensio Manuel Ugarte ak Lucas Hernandez les nouvelles les nouvelles recrues du Paris Saint-Germain Chernour ñu ko ñaan la bonne chance ñaan également mu ñeu équipe nationale du Sénégal kii également di Xavi su Peter Bosz mi yoron ñi nga xam ne nag donc wa Monaco mon excellent entraîneur waxtaan nak mom mom nak fini ni Paris Saint-Germain dafa bëgg relever clause de rachat bi ci amone 6 millions pour mu dal dellu ci mais booy bi fini dal moy xalat xol ndax day dem wala du tok day tok mom dal amna ci choix ki nak également di Renato Sanchez dafa soppeeku ah. ah moom gaañu gaañu yi moom année bi moom parce qu'il n'a pas joué avec le Paris Saint-Germain il s'est métamorphosé xool leen ko physique bi mu yor instant yi nag bu ci tànk yi dëgëree noonu noonu. on peut pas espérer mieux mais également gars est-ce que légui information aussi dañ len koy jox xamna ni ne xamoo ko won jox na exclusivité légui championnat de France tout ci cinq grands championnats en ce début de saison parce que lu moy que ni euh, buñu xolé cinq dernières années performance yi def ak tout ak indice UEFA léegi waa Hollande nek légui 5 cinquième championnat le plus grand ñom pour l'instant ci ndortel gi euh, France bokkatu ci donc nak mbir yi mën changer bu championnat bi demee yeneen résultat wat mais pour l'instant dal dañu daanu ngeen xam ko parce que fi lañ leen di jox information yu lèr nañ ki nak di John Textor moom mo jënd Lyon xam ngeen nañ ko fi ne Lyon dañ ko jënd mais dafa may problème ndax wa DC euh, DNCG nga xam nak lepp lu jëm walum gestion walum finance hein contrôle financier euh, club ñom ñoom ñoo koy def fi nii dañ ko teg gët ne am na lu bëri xam na war nañ cee liggéeyaat loftus chèque numéro 8 bi lay sol du côté donc du Milan assez c'est officiel donc gis ngeen ko le joueur de Chelsea ñëw na mais numéro 8 bi également lay daal euh, sol 7 bi jël ko loftul check jëlu 7 bi donc 8 bi la daal jël mais aussi Kamada nek joueur bo xamné mi ngi jur coow parce que xam ngeen temps yi mu wa Inter dañu yeb waa Milan Milan dafa naroon dem bay jënd ki am mooy Marcus Thuram wa Inter xëcc ko ci ñom Inter tamit non lañu bëgg def ak Kamada parce que fi mu ne nii Kamada amon na accord principe ak wa Milan waye ñom ba légui dara officiel yoogul Inter nak bëgg dugg ci ndëgg sërëx gi bëgg ko daal récupérer Sadio Kaiser magnifique Bambali man lay wax Sadio man nak gars actuellement valeur marchande dafa nek en chute libre manam dafa wàcc lool lool lool lool benn étude bu ñu defaat war na ne fi mu ne nii Sadio Mané bokkatul ci li nga xam mooy joueur africain yi gën a cher lii nag gars yi boo leen xool ci 2000. 21 bi 2022 le woon gis ngeen ñi nekkoon ci kaw kaw par rapport ak seen valeur marchande et tout ah, affaire yi 2022 ça Mané yéeg ba bokk troisième position bi kii di Osimhen nekk ci kaw Salah nekkoon deuxième Sadio Mané nekk troisième ngeen gis ne également ñu dem ba li nga xam ne nag mooy donc euh, Sadio Mané moment Salah nekk premier ça Mané nekk deuxième aussi nekk troisième à ah, Akimi nekk cinquième finalement qui ni aussi euh, même dernier sondage mu moo nekk premier avec une valeur marchande estimée à 100 millions et plus ba 120 millions donc qui top ci Mohamed Salah moom ñu estimé ko à 60 10 millions. Donc, l'attaquant égyptien, Bok également, n'est que deuxième position. Mais troisième position, il dit qu'il y Achaf Hakimi, qui n'a un message de Kazan Mané Manegaï, 31e position. Je suis en train position, la Sadio Manegaï, tout le monde est estimé actuellement, valeur marchande, 25 millions. Il y a un millions à Durom, il que estimé. Finalement, il dit est éliminé Il est éliminé, éliminé, doute pas de Skillman, Gai le il est beaucoup plus appelé Doudé. Actuellement, mon est estimé à 35 à 40 millions. Il y a un millions de 40 millions, donc mon équipe kaw kaw kaw Iliman Illuminé Ndiaye fi ne nag waa Sheffield United ñi ngi am proposition yu bëri Sheffield nag gars yi vingt cinq lañ tàmbale fi ne nañ ba ñu ngi ci ay trente trente cinq quarante lañ jëm donc aujourd'hui mo ci nekk du côté également deuxième position bi ki nga xamné moy également euh, ki di euh, donc Boulay euh, Boulaye Dia moo tolloog Sadio Mané Boulay Boulaye Dia aujourd'hui mom il est estimé à vingt cinq millions comme ni ngeen ko gisee ak salaire nii donc gars yi information lañ leen bëgg jox woy leen di like woy leen di abonné fi la affaire yi di leeree fi lañ leen di joxé détail wax leen uniquement football lépp loolu wara xam li ñay ñaan rek gars yi ngeen abonné ci en masse Buzz en masse plutôt Buzz ci cloche de notification bi abonné mais également Buzz ci lien Baba Show bi vous abonné à la version française bi su avez